ñu ngi am mbégte dalal ci matinalu tey bi Abdoulaye Wilane moo yore kàddu parti socialiste ñu ngi lay nuyu di am mbégte lool dalal ci matinalu tey bi asalaamaaleykum Fatim Fatou mbaa woppo mbaa jàmm nga fanaane yàlla nañu yendoo jàmm gis jàmm dégg jàmm semaine semaine tawféex waaw. waaw amiin amin semaine jàmm ak xéewal alors bureau politique bu parti socialiste daje na ci njeextalu ay bés bi réunion bu ñu bari doon xaar ginnaaw bi président Macky Sall seen président coalition tànnee candidat euh, benn bokk yaakaar muy Amadou baax lan ngeen waxante foofu ak lan lañ ci mun a jàpp comme décision. Ah, jërëjëf euh, ni nga ko waxee noonu la waaye dafa am lu wutalee parti socialiste ak parti yu bari. ñun dañuy def ci li Senghor doon wax esprit d'organisation et de méthode parce que nañ ko def bu ne nañ ko waxtaanee moo ko war a jiitu loolu moo tax gannaaw boo xamee ne euh, ñëpp ñu ngi doon xaar président Macky ndax day nekkaat candidat daawal déet suñ parti dafa sàkk woon gisante moom. booba temps moom jotuñoo gis ba bés bi mu taxawee wax ne pour sàmmonte doom pour respecter li mu waxoon ci histoire. moom dootul nekkaat kanjida donte kon am na ñu ko bëggaloon loolu donte kon nee na yoon mayoon na ko sañ-sañ bi euh, mu ne moom du nekkaat candidat ci jamono boobu la toog ak waa parti socialiste waxtaan ak ñun waaye waxtaan wa yemul rek ci ñun waa parti socialiste képp ku bokk ci benn Tanor te loolu di ndam ak sag bu Ousmane Tanor Dieng am ndax Ousmane Tanor ñee bi muy dund la sosoon Benno Tanor en 2012 te boobu ba nëgg ni benn Tanor kenn dañu ci ña nga ca la ñu Ousmane Tanor bàyyi woon mu ngi mel ni ñun ñëpp chaque jour Tanor Dieng lañ koy gis loolu nag nit ku am kaddu moo koy def waaye lu jiitu ndaje moomu bureau politique parce que dafa defoon séminaire pour waxtaanee fuñ jëm nuñ fay demee ak kuñ fa bëgg a àndal. parti bi yëpp daal di ne ñun kat ay la yéwén nañ wut candidat ci biir benn bokk yaakaar mu nekk candidat benn candidat bu benn bokk yaakaar ndax liñ def Sénégal depuis 2012 ba léegi nii ak liñ dig Sénégalais yi muy benn les bennoo liñ dig senegal yi muy politique publique yoo xam ne def nañ ko. am na ci am ndam yu ñu ñëpp gis waaye itam xam nañu réew mi xam nañ tolluwaayam te xam nañ jamono am nañu la main nañu fexe mu wéy ñu jëm kanam te ni ñu àndee nii muy lu kenn mësul gis ci àdduna bi ni bennoo yàggee ak ni bennoo di àndee donte kon am na ci ay naqarlu ak ay frustration ak ay jàmbat waaye daal te jàmbat yooyu yemu rek ci benn parti ni ko ni mu amee ci biir PS noonu la ci biir APR am ci AFP am LD am fu ne waaye ñëpp lu ñuy jàmbat jàmbat ak lu ñuy naqarul naqarul ak lu ñuy ñaxtu ñaxtu kenn waxagul sama morom lu ñaaw weeranteeguñu mën nañu xuloo mën nañu xeex waaye daal ñu ngi ànd nekk benn di suturaal suñu bopp di suturaal suñu réew ñu ne kon nañu wéyal loolu bu ñu demee nag waxtaan ceeg président Macky Sall mu déglu ñu ne ñu ah, kon nag yéen waa benn tanoor waa parti socialiste def ngeen ni waa sama parti ak waa benn bi yëpp nee ngeen nangu ngeen ma tànnal leen waaye man euh, du nit koo xam ne lañ gor gor duñ ko jox lépp mu jël lépp mu jëlaat yëf yi dénkaat ko lenn ci conférence des leaders ne nañ ubbi candidature yi ñi wax candidat yëpp ñu dara leen seet na càmbar waaye Macky Sall yemul foofu rek diisoo na ak ñi tekki ci réew mi moo xam kilifa diine la moo xam kilifa aadala moo xam borom barke la moo xam borom alal la moo xam borom syndicat la moo xam ay citoyen ordinaire ñi nekk candidat ñëpp laa wax ñi képp ku ñëw tudd la nekk bëgg ngaa nekk candidat te daje naa yow ñii mu wax ak ñoom yeey leen ñii mu wax ak ñoom ca la leen mu seetee ba mu seet xam nga lii wolof doon naan demoon na ma suuruur teenu baay buur njaay nag ya bëri niroo sàmm mën ràññee sàmm boobu mooy kañ ne mooy Macky Sall mu tànn ne Amadou Ba la kon nekkatul tànnu mu Amadou Macky Sall tànnu Benno Bokk Yaakaar la bi ñu jógee ci loolu ñu ne nañ ñu wax ko suñ parti ndax parti bi moo ñu santoon nañ ko wut dem nañu wuti li ñu am na ñoo yebbi leen ko ñu def secrétaire exécutif alxames samedi bi ñu def bureau politique yaatal ko nag ci mboole mouvement affilié intégré du boole ci secrétaire général coordination muy 138 coordination ñu boole leen ci bi ñu wax waxtaan ba ni ñu génn lu mat juróom ba juróom benni waxtu ñu jël kàddu jëp te niw liggéey bi demee mooy aminte moo ubbi dalal nit ñi jàmm liiral ñu message am jox ma kàddu gi man maa njëkk a wax jàngal fi ñu jaar ni ñu doxalee rendre compte ci rencontre bi nga xam ne nii Mamadou Faye ak man ak aminte ñoo fa toogaloon parti bi ma wax leen ni Macky Sall doxalee ak lim ñu wax wax ña fa wax ñëpp lu ñu wax waxit candidat bi génn yokk ci sama jàngatu bopp ñu ubbi na débat lu mat euh, téeméeri nit daanaka wala war na ko jege jël kàddu benn wala ñaari nit ñoo waxoon ne ñoom daal ah dañu bëgg ñu dalal seen xel yebu nañ ci waaye nañ dalal seen xel mooy waa Iran Iran lañ bokk sax ñaar ñooñu waaw damay bañ a tudd seen tur rek pour mel ni leen di <laughs> waaye Iran amul Iran amul en tant que instance mais ñoom ñoo tudd seen bopp Iran hmm. bi ñu toogee ba ci fin ba déglu ñëpp ba kenn amatul ku bëgg a wax ku ku waxul ñu ne nañ liiraat motion bi nag fekk na am na ay amendement ñu amandé ko ñu liiraat ko ñëpp jog tàccu soo xoolee vidéo bi sax aminte bi bi ñuy tàccee par dane ah yéen ñëpp nag maa ngi doon xool ñi ma foogoon sax ne duñ jog xool naa leen bu ñu fi génnee nag bu kenn wax ne man bokkuma ca wala ànduma ca gor day sàmm kàddoom gor day sàmm kàddoom nag moo feeñ ci liñ liñ def ñun waa bennoo ñoo waxoon Macky Sall ñu candidat yi yëpp d' accord woon ne ne Macky Sall tànnal Macky Sall tànn na dañ sàmm suñu kàddu ndax góor bu waxee ne wala day sàmm kàddoom suñ sàmmee suñu kàddu ci la ñuy mën a bennale bennoo dëppale suñ jëf ak suñu melokaan ak li sénégalais yi doon xaar depuis 2012 ba nag. kon daal mën nañ jàpp ne parti socialiste ànd na ci tànneef gi ñeel Amadou Ba ci élection présidentielle 2024. Hmm. boo bëggee dëgg sax wax wax bu neex. Hmm. bu bi dëgg dëgg dëgg dëgg. da ngay wax ne parti na Amadou Ba ni bennoo yëpp tànnee Amadou Ba. mbir mi mbir mi mbir mi du ànd ci. dañ ko maanaam dañ koo bëgg. fexe ko ba mu am. loolu mooy li am. d'accord euh, am na ñeneen ñu doon wax ne bëgg nañu itam nekk candidat bokk na ci Jean Baptiste Diouf ak yow mii sax. alors yooyu bëgg-bëgg nag léegi nu muy mujjee. ah bëgg-bëgg yi moom ayul bëgg a dem taxul a dem mën a demee tax dem ñi bëggoon dem ñëpp yaa ngi dégg bët bu set xibaar bu neex. bi ci mujj mooy président Abdoulaye Daouda Diallo nga xam ne sama xarit la suma soxna nekkoon na secrétaire am euh, moom ci moom dégg nga li mu wax. kenn ku ne nag yaa xam fa ngay teg li ngay def man waxoon naa ne dama bëggoon parti am candidat ba ma ko waxee nag ba nag ni socialiste Sénégal yëpp koor amul benn coordination boo xam ne ña fa nekk. binduñu ma jokkoog man ne ma ay ca yow la xaar maa ngi leen di gërëm di leen sant dama ne waaw balaa am solo nga sañ a wax déet waaye ñun. kunda bi day sama da nga boo séenee da ngay daw vote dama wax ne nañ benn les waa PS benn les socialistes yi comme niñ bëgg a benn les bennoo comme yàlla dogal na ne tey jii nii lii mooy li gën ndax jàmpaay ndax tolluwaay ndax euh, warugar yi nga xam ne moom lañ moom mooy li ñu war ñun ñëpp ak fi Sénégal toll ak fi adduna bi toll man d'accord naa ci Amadou Ba. bu baax a baax a baax a baax ndax diggante bi ñu seq ak démb ak bëkk démb waaye itam kaddu guñ joxoon président Macky Sall jox ko suñu ta général parti socialiste loolu itam jàpp naa ne dina am incha allah ci Jean Baptiste Diouf ma xamal la ne président Macky Sall na ko comme ni mu dalalee candidat yëpp mi ngi ko doon def mais du ñàkk danañ waxtaan euh, am nañ fa fu ci ñu mag yi parti bi ñu ci am ñu ngi ci dox euh, parti socialiste 1948 euh, ba la gën a ñax daal laaj ah, tey ñi gën a mag ci parti socialiste ñi nga xam ne ñoo mag parti bi bariwul ñi ñi ci gën a mag li ci ëpp dañoo maase ak bi ak ñi ci ba ki démb donc ñun ñooñu dañuy d'accord ne lii ñuy def ñun ñoo tabb ko léegi nag li ñu war a fexe mooy gannaaw bu ñu ko tabee ba pare tànn ko ne yow joxoñ ko euh, dañoo war a waajal fexe ba ci cent 138 coordination yi ci mouvement appelé intégration et intégré yi fu ci ne ñu fexe ba ñëpp ànd ca la noonu mu ñu waree loolu la ñuy sàkko ci benn bokk yaakaar kuréel gu ci nekk ku ne nga def ko liggéey bu tar la waaye il faut que léegi ñu ñu kenn ku ne yëngal fa nga dëkk ak ña nga ña nga ña nga jaboote ak ña nga élif yëf yi def mouvement d'ensemble ñu homogénéiser ko mu nekk nag dégg nga mouvement boo xam ni nii balaa moo taxaw rek le 24 février ci ngoon ñu ne wiiw Amadou Ba dee le premier tour loolu suñu ko bëggee mën naa ne mais pour mu am il faut que kenn ku ne benn la sa xel ak benn la sa sa sa sa mbooloo sa mbootaay sa kuréel benn ñi benna la ñun ñëpp benn bon benn bokk yaakaar loolu pour mu am il faut que nit ñi ñi nga xam ne d'accord nañ ci Amadou wala yéene nañ ko avant ñu koy tànn te te xam ne yàlla yàlla am na loo xam ne nii nit ñi am seen i waaye yàlla yàlla moo ko njëkk jiital yàgg na ñooñu bu ñuy wax nañu am humilité nañu sedd wala fi daan naan ëllëg du añ du reer waaye lu mat a yàkkal la nañu bàyyi xel nawloo gu ñu war a nawloo ñi nekkoon candidat à la candidature te continuer ak ñoom moo tax su suñu biir parti danañ continuer ak Jean Baptiste ak keneen ku dul moom sax su fekkee am na. waaye yow moom li nga jàppoon yow bàyyi nga ko. mais man ya man man man man maay doomu parti man xale bu tuuti laa man ma bëgg nit ñi yàlla ma yàlla ma yàgg fi bañ a def tooxi doona bañ a def njomme bañ a mel nu waa parti bi ak nu waa Sénégal bëggul. ma naa mel ni waa parti bëgg ak waa Sénégal bëgg nekk ci li waa Sénégal ak waa parti bëgg euh, di jéem ak a fexe ak a def li si waa parti bëgg ak waa Sénégal bëgg porte parole euh, dëgg la neexul waaye waaye maa ngi koy sàmmoonteeg ñoom nee naa la euh, loolu moom amul benn problème en tout cas encore une plus maa ngi fàttali di soññ sama bopp kenn ku ne ci ñun te dinaa yaakaar yaakaar naa ne dinañ ci waxtaan ak candidat bi ak président Macky Sall dafa tukki pour que bu ñëwee ba ñu def. Euh, signature de charte bi avant ñuy tàmbali parrainage yi normalement 27 28 bii ci weer wii la war a tàmbali waaye gàmmu gi day tax ba donc samedi ba ci topp tambali tàmbali muy boole le 30 ñun ñëpp kenn ku ne na fexe wut parrainage boo xam ne ni parrainage intégral inclusif parrainage des députés parrainage des présidents de département parrainage des maires mais parenage citoyen boo xam ne nii parti yëpp. ku ci amul député amoo ay maire na nga def sa parrainage citoyen ñi am sax député ak maire nañ def parrainage citoyen xam naa sax ni député ak maire yi ak euh, comme président conseil départemental yi ñu ci bëri ñoom duñ ñemee ñemuñu parrainé keneen ku dul ku dul candidat benn parce que ku ko ci def te bindoon ne da soo ko defee ba signé engagement ba pare soo signé ba parrainé keneen suñu assemblée yaa tooñ sa bopp suñu la ne fol nañ la sa mairie wala sa département yaa tooñ sa bopp loolu itam xam naa ne bokk ci li tax sax yenn yi gën a yomb loolu bon ma waxaale ko ci nag ñamas yàqul seen waaw. <laughs> que gën na ci parti socialiste mu toog ñaari élection yoo xam ne du ci am candidat di ma ne am nañ candidat ndax 2019 Macky Sall ngeen investir woon 2024 Amadou Ba ngeen di investir mais amu leen candidat boo xam ne ci biir parti socialiste la jógee. dinaa la wax waxu borom xam-xam xam politique parce que lu ma wax ci yëf yi du xam ngañ ma sa suub gis nga lii. man liy feeñ ci ambition wu parti tënkuwul ci dunduk doomu adama kenn wala ak maas ay biir génération la euh, xoolal parti bi jiite woon Côte d'Ivoire tey fu mu toll xoolal France bi Mitterrand ña daanoo après ñi ñëw voilà donc Sénégal pour que parti socialiste dajalawaat pour que sax parti socialiste juboo ak yeneen parti yi mën naa ñàkk a nekk tey waaye nañ ko yéene di ko wax di ko fexe tey te te tey dëggal tey dëggu waxtu muy sotti ji amaana ñu koy sooke sax du doon ñoo koy fekkee ji wala du ñoo koy sottal mën na am ay màggat dañuy doon naan alhamdulilah ba na sama yéene sotti na sama dund loolu mooy li nga xam ne ni nit ñi dañ ko war a xam amaa nag parti bi am na candidat ndax Amadou Ba bi ñu tànn ma baamtu ko wéyjuru mu jigéen dafa jiite woon kuréel ci parti socialiste yore comité moom ci boppam bokkoon na ci parti socialiste ba nekk ci jamono yi Mamadou Diop conseiller à la ville de Dakar après la bàyyi politique loolu day am ci àdduna bi mu Sénégal yàlla gis nga nit boo defee li la war a def say jafe-jafe nga dénk ko yàlla yàlla la ko teel arabe yi dañu alxuraan day wax ne wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa hasbuhu loolu la Macky euh, Amadou Ba def ba xëy Macky Sall falu te wax nañu moom wax na télévision ñëpp dégg ci ban anam la njëkk a waxee Macky Sall gannaaw bu Macky Sall joxe ko ay confiance en tant que haut fonctionnaire moom mu nekk en tant que premier mu mais yàlla def mu ñëw tey nekk ministre ànd ak Macky Sall ba xëy xëy yàlla def ci xelu Macky Sall ak waa yëpp ci ñi bañoon ak ñi bañoon yëpp yàlla def seen xel mu nekk suñu candidat à la mu nekk candidat unique benn bokk yaakaar donc kon ñun jàpp nañ ne. candidat wu socialiste yi la. ni mu nekkee candidat wu socialiste daal nekkee candidat wu APR nekk candidat wu AFP nekk moom daal mooy candidat ki rassure et qui assure nañu ànd ak moom te ni ma gisee mu réagir. gannaaw bu Abdoulaye Daouda Diallo waxee ni ma gisee mu réagiré ko digganteem ak Amadou Mame Diop ni ma gisee mu réagiré ko digganteem ak Abdoulaye Diouf Sarr ma yaakaar ne noonu lay réagir digganteem ak amul euh, Aly Ngouille Ndiaye parce que xam naa xarit yu bëri ñu bokk. te ñoom doon nañu ànd nag bi ñu ne xale ah ñoom ñaar ñooñu Ablaye euh, Aly Ngouille Ndiaye ak Amadou Ba am naa lu ma ci xam tuuti. Euh, noonu laa xamee itam digganteem ak maam Boy Diaw ñoo bokk ñoo bokk lu ñu lu ñu jàng lu ñuy liggéey Sénégal donc nañu rafet njort moo tax may waat nit ñi ne ne jaaykatu peinture jon yi jaaykatu kaani yi nañu na nañu nëppi parce que ñu ci soli bët day indi soj bala mu métti bopp euh, euh, këjut jot bu bëri si day day dafa saf ñu bàyyi parce que ëllëg du añ du reer waaye lu ma ta la te benn la bennoo moo xew sàmm kàddu moo xew sàmm parce que ñun ñoo wax Sénégal bennoo bokk yaakaar waaye itam ñun ñoo war a sàmm benn la pour mën a pour mën a dalal xelu Sénégal yi yaakaar naa ne kilifa diine kilifa aada borom Euh, may yi ci soob seen loxo di ci dimbale président Macky Sall yàlla nañ ci am ndam ba li ñu yéene ci Amadou Ba muy am ndax ni Senghor ràññee ko mu nekk histoire lu mu denc Abdou Abdou Diouf ràññeekoo ko Abdoulaye Wade ràññee ko Macky mu ràññee ko Ba bi am na yaakaar ni ni muy ñëwee ci nguur gi macha allah yàlla ko yàlla defal cat mën naa nekk noo xam ne nii dañ da dañ koy wax ci àdduna bi di ko wax ci. ci ci ci ci ci Afrique te ci loolu nag ñun waa PS ñoo ci ëpp sas ci histoire Sénégal ak tolluwaay Sénégal ndax waxuma la rek problème mu insécurité bi am instabilité bi menace terrorisme mënu waxuma la coup d'état am waxuma la euh, changement climatique yi waxuma la maladie yu bees yi euh, ak mais mais mais PS mooy parti bi nga xam ne lu fi nekk ci luy akki ñoo ko samp sooke ko ñun dañu yóbbu Sénégal indépendance ci ga tojul géej gi dema dool deret tuurul def alternance bu Senghor jébbal nguur gi ab Abdou Diouf defaat alternance nangu Victor Ablaye Wade def alternance ak Macky Sall topp ci gànnaawam àndoom di liggéey te ñu amee beneen doom boo xam ne mën nañ koo jox réew mi dans des conditions yoo xam ne dafa nekk condition admirable où Sénégal day gën a siggi ci àdduna bi ñun waa PS ñoo ci war a góorgóorlu pour fexe ba bu ñu mujjee pousse bi mu réer mujjee pousse bi mu réer du suñu jëmmi bopp mais c' est l' option projet de sociétal c' est la trajectoire jàmmi réew loolu moo tax euh, maa ngi wax waa parti socialiste siggi leen bu leen am benn complexe assumer leen choix wu Amadou Ba kenn ku ñu dem assumé ko ndax loolu mooy sagal sa kilifa sagal sa kilifa mooy sagal président Macky Sall mooy sagal Aminata Mbengue Ndiaye mooy sagal parti socialiste mooy également sàmm suñu ndono waaw parce que nit mën naa ne man man président maa ngi ci parti bi waaye mën naa am également li Ousmane Tanor Dieng jëriñu ci digganteem ak Amadou Ba li am Amadou Ba jëriñ bi mën naa mu ëpp fuuf lu ku bokk ci secrétaire exécutif wala bureau politique jëriñ fi ñuy jeexale mooy bilangu président Macky Sall bi nga xam ne Amadou Ba moom la nar a ànd ak yéen campagne mais bilang boobu ñu bëri ci sénégalais yi nee nañu li koy gàkkal mooy jàpp yi jàpp opposant yu bari ak euh, ay nit yu bokk sax ci société civile bi euh, manifestation yi nga xam ne aussi euh, def nañ ci répression ay bakkan yu bari àdduna mm. ba ci suñu diggante suñu borom sax léeg-léeg nga dégg bu duloo nag waaw am nañu am na sax bu sëriñ suñu borom wàccoon ci suuf da gis ko gàddu yet jëmale ko bala nga gis ko jël wurus di ko ko sànni euh, ndax ndax bëgg ci moom kon euh, noonu la àdduna noonu demee euh, waaye li ma la bëgg a wax mooy te loolu tam xam-xam la seetal Amérique ña ngay jàmbat ak a ñaxtu France la même chose yeneen réew yi la même chose Makkatul Mukarram la même chose Sénégal gii nii ñi fi doon dund yàlla cela soixante-dix ans boo leen waxoon li fi xew tey dañ naan mooy yéen yéen a ngi ci aljana yéen waaw waaye saa yoo réglé problème yi nga jànkuwanteel muy problème yoo xam ne du démb bëgg démb lañu fi nekkoon ba nga saafara ko rek problème mu ëllëg dañuy ñëw njatt la kon nañu rafetlu bu baax liggéey parce que démocratie noonu la chacun fait ce qu'il peut le temps qu'il peut. mais nee nañ démocratie Sénégal maa ngi ñëw chacun fait ce qu'il peut et euh, le temps qu'il parce que àdduna comme course relais la xam nga course relais mooy langa buri bu ñu bu def da ngay daw jox kii kenn daw wéyal donc comme course relais la euh, et et et Macky bi mu fi nekkee ba nag nii. Euh, ñun xam nañu ne am na ay jafe-jafeñ parce que su ma la waxee problème mu mën mbëkk mi jafe-jafeñ la su ma la waxee problème yi xew ca Sabodala ca Xosanto loolu te mun naa am feneen a feneen loolu dañ ko war a régler ndax Senghor doon wax ne force doit rester certes à la loi mais Senghor ne les lois et règlements certes sont sacrés dans leur contenu mais ces lois et règlements s'appliquent à des hommes il faut les humaniser yaakaar naa ne ki ñi élif ñi nekkal état foofa am na fu ñu juumee ci diisoo ci waxtaan ci ci laante biir d'ailleurs diin diin l'islam dañ naan ak diinu nis nasiha nasiha mooy laante biir donc jàpp naa ne euh, yooyu nga wax yëpp dëgg la te dama ne saa yu ñu defee erreur ci réew ba dem kaso rek échec ku société ba la échec collectif la y compris ku def viol ku def assassinat ku def euh, euh, escroquerie voilà ak ak ak lu mu di doon donc mais loolu yëpp sanction positive ak négative am na mais sanction li ko jiitu mooy yedd nit ki euh, euh, xettali ko xettali ko nasiha donc loolu laa jàpp ne am na mais encore une plus euh, jàpp naa ne coupe bi doon ñu tàmma ñu tëggal ñaari boor gis nga dama wax ci jamonoy PS ñu ne ma woy Abdoulaye Wade dañ ñaata ni ko kaso man ku def lam defoon ñu yóbbaale kaso man mii joxe yow nekk naa porte parole parti depuis 2000 maa ngi ko nekk avant même sa naan man wax mais ma yóbbu kaso mosuma wax lu journaliste luñ ko woowee tribunal waaw xam nga Sénégal dama ne dañ ko yóbbu indépendance bal takkul retourul Abdou Diouf wutu na Senghor te kasoo reyante amu ci Abdou Diouf nangu na jébal nguur gi Macky Sall Ablaye Wade ci jàmm Macky Ablaye Wade jël na jox na ko ab Macky ci jàmm ak salaam maa ngi ñaan yàlla Macky Sall mi nga xam ne nii gàcce ngaalaama moom mooy président bi kenn mos ta gagné <laughs> kenn mos ko gagné ci maire ci député ci président de kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo ànd moom nañ ko dimbali mu am woo xam ne nii ki mu tànn day am ndam lu kenn musul am su boobaa Sénégal jëm kanam waaye waaye na état bi continuer def su ñu la daanee ba pare nag su nit ñi yërëm toloo wala mu wala nit ñi ñaan njekk mais am na fi grâce liberté conditionnelle liberté nangam liberté nangam am na du dëgg boobaa ñu libéré parce que loolu mooy am mooy tax daan yi am fonction pédagogique éducative. am jàngale. waaw ah. jërëjëf Abdoulaye Wilane amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu tey bi yaay parti yaay porte parole au parti socialiste ñu ngi lay gërëm. mais maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla mu musal ma ci war gëlëm. accident wu wax euh, te li ñuy defal Sénégal. yàlla nañ ci yàlla may ndam yàlla buñ ci rus àdduna yàlla buñ ci rus àllaxira maa ngi baalu àq ñëpp di leen baal te yàlla rek tax